docteur Ibrahima Mendy ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. maa ngi lay fay Elisabeth di nuyu ñu seen patron bi euh, nuyu ñëpp nga xam ne liggéey ci réew mi FM. Mhm. di nuyu seen auditeurs ak auditrices nga nekk ci bopp direction analyse prévision ak statistique agricole bokk tamit ci APR euh, di milité ci Ziguinchor tey nag Ziguinchor ñoom mbir mi leer na euh, ci local yi ñu jëm élection municipale yi kii nekk seen tête de liste di Benoît Sambou ndax tey jàpp ngeen ne ak Benoît Sambou. Mabo tey coalition bi mën naa am dara. waaw merci d'abord avant euh, ma ñëw ci sa question bi damay commencer par féliciter euh, Bouna Sambou bi nga xam ne moom le président de la République tànn comme euh, tête de liste à Ziguinchor pour la mairie. Mhm. et ak Seydou Sané bi nga xam ne moom la tànn comme comme candidat président conseil départemental de Ziguinchor. Mm-hmm. Euh, di ne aussi di ñaax aussi suñu camarades yi yu yu APR yu Benno Bokk Yaakaar ak la majorité présidentielle. Mm-hmm. Euh, ñu respecter choix président de la République parce que président moo moo tànn euh, et puis loolu ñu yëpp ngi doon xaar loolu parce que en réalité Ziguinchor amuloon réunion. bi nga xam ne responsable yi yëpp ñoo teew. Mm-hmm. pour ñu discuter possibilité de candidat bu ñu tànn de façon consensuelle pour ñu proposer ko président. Mm -hmm. donc comme loolu amul président moom moo moo ñu tànnal donc dañuy en tant que militant discipliné maa ngi leen di ñu vraiment respecter choix boobu. ànda ànda ak ñëpp pour que ñu au vingt trois le jour du vingt trois janvier ñu gagné élection yi foofu ci ci mhm. donc loolu la amoon wax léegi pour changer xam nga ñun politique ci politique la ñu mhm. politique dynamique la donc politique liggéey la politique terrain la te xam naa ne liggéey nañu loo xam ne war nañu tax ñu mën a am yaakaar en terme de résultat yi ñëw euh, et puis aussi campagne bi affaire locale la nawetaan la affaire de comme ni ñu koy waxee affaire de quartier la. Mm-hmm. donc euh, ñun ñu ngi liggéey pour loolu quoi. yéen a ngi mbapat daal. waaw. waaye lan moo waral tey euh, mënu leen woon toog depuis booba ba tey ngir mën a waxtaanee candidature yi. waaw peut-être euh, euh, ñàkk euh, ambition yi du ñàkk sax peut-être ambition yi ñu ñenn ñi am ku nekk ambition bi nga am moo tax loolu mu tax ba mënuñu toog pour discuter mais tout compte fait comme président tànn na ba pare daal il faut que ñëpp respecter boobu ta boobu mbir tànn pour ñu ñu donc euh, lu li nga xam ne ñàkk euh, ci toog pour waxtaan loolu muy suñu ginnaaw léegi léegi xam nañu lan mooy réalité bi lan mooy euh, suñu candidat yi donc li ñuy def dañu war a liggéey pour pour pour pour pour jàppale leen pour que le 23 janvier suñu objectif mooy mu nga xam ne mooy ñu élection yi ñu ndax yow am nga yaakaar ne la ngeen mënuloon démb dajaloo euh, ndax euh, pour des raisons euh, diverse tey ba ñu choisir candidat loolu dina mën a am. waaye xam nga démb. ndax du am ay frustration yu feeñ. xam nga démb démb démb lu contexte ak contexte tey hmm. je pense que ñu perdre élection yi en 2019 après ñu ngi yoon ci terrain bi leader yëpp ku nekk yaa ngi doon liggéey sa côté. Mhm. donc euh, je pense que am na lu bëri lu ñu def ci ci ci santé bi. ñu def ko ci éducation bi def ko ci sport bi ñun ñoo doon nekk ci ci njënt yi ñooy dem ci mariage yi ñoo dem di jaale ji donc euh, je pense que loolu ne serait-ce que tout ça liñ li ñu li ñu jot a liggéey. Mhm. Euh, gëm nañu ni ki population yi nañu delloo njukkal le le janvier bu jotee nañ ñu votel donc def nañu liggéey bu nga xam ne bu war nañ mun na tax ñu am yaakaar et également aussi euh, président premier bi tànn ñaar ñooñu xam nga président moom am na information yu bëri yi nga xam ne mu ngi ci loxoom ci localité yi yi ko war a tax ba moo mu tànn ne diw ak donc loolu je pense que dañ koy respecter ñu doon benn ànd liggéey pour gagner. moom Benoît Sambou ak euh, Seydou Sané ndax jàpp nga ne euh, tamit dinañ def unanimité am nañu chance yéen ñi APR bu ngeen leen jiitalee jiital ngeen leen ba pare sax mais euh, ban chance ngeen am tey ak seen i adversaires yi ngeen jànkoon yi nekk seen kanam. waaw léegi je pense que ñoom leen tànnee ba pare que il faut loolu dama koy wax il faut que ñoom ñu tendre seen loxo woo ñëpp euh, euh, wo ñëpp dox tànk pour que ñëpp déggoo parce que je pense que ñun a chaque fois bu ñu doonee benn rek dañuy gagné. Hmm. saa yi ñu perte euh, day fekk jubóo ñu dafa am ay division mais saa yi am nekk benn rek dañuy daje donc ñoom war nañu am rôle am solo bi nga xam ne. war nañ ko jouer mhm. ci ci ci kii i ci ci yi ñëw mhm. euh, donc euh, wax won ñi ni kii affaire bi c'est pas c'est pas seen seen seen jëmm moo compté mais jëm euh, parti bi jëm coalition bi jëm président de la république loolu moo am parce que loolu mooy am moy politique mhm. donc ñoom dañ leen tànn rek mais mënoon nañu tànn ñeneen donc je pense que loolu bu ñu doxee carte boobu et puis aussi euh, euh, kii liste yi liste yi pour ñu ñuy investir bu ñoom ñooy nekk tête de liste mais ñuy ñuy bokk ci liste yi hmm. boobu bu ñuy consulter liste boobu loolu tamit souvent mooy andi fristration yi mooy tax ñeneen peut-être euh, ñu frustré wu andi andi jafe-jafe ci ci déggoo bi donc loolu nañ ci veillé buñ ci veillé rek je pense que mën nañu mën nañu gagner et puis quand même ay nit yoo xam ne xam nañu leen Ziguinchor et du ñoom rek ñooy ñooy ñooy yor élection yi ñun tamit ñun ñu ngi fi. Mhm. Euh, euh, ku nekk ñun yëpp leader yi ànd ci ñoom ku nekk euh, am nga am nga li nga am Ziguinchor. Mhm. donc bu ñu ko boolee rek je pense que normalement en principe war nañu mën a gagner. mais ci kaw yooyu ci kaw discipline am entre ñun respect am entre ñun loolu bu ñu ko defee rek gañ. ci frustré yooyu mbaa yow ci. oui euh, xam nga euh, comme euh, lu ma koy wax souvent. Hmm. ñun responsable yi nekk Ziguinchor yëpp ku nekk mënoon nañ ko tànn comme comme candidat. Hmm. donc mais choix bu koy def xam nga booy choix booy ne choix rek da ngay da am ñoo xam ne ñi éliminer nga jël ñeneen. Hmm. donc loolu ñu ko. donc man ci dynamique boobu laa nekk euh, frustré wu ma ama benn frustration par rapport à sa mais dinaa gën a liggéey veiller à que lépp jaar yoon euh, euh, vraiment pour ñu gagner andi sama apport parce que man comme nu ma koy waxee objectif bii mooy gagner Ziguinchor vous imaginez que ñun Benno Bokk Yaakaar gagner Ziguinchor victoire amul victoire du am victoire fii ci Sénégal bu gën a am importance que victoire boobu bu Ziguinchor même Dakar bu ñuy wax pense fi ñu toll tey gagné Ziguinchor moo gën a am solo gagner n'importe quelle localité fii ci ci Sénégal par par rapport au contexte. Euh, tey ci seen allié yi ñi nga xam ne àndoon nañoo muy UCS euh, par exemple ñoom dégg ngeen leen nee nañu dem nañu euh, jàpp ne dañ da ngeen leen a wor njiitu mi da leen a wor ndax yow ànd nga ci kàddu yooyu. bon c'est vrai que bon peut-être kàddu am yi ci contexte bi la yaakaaroon naa ne moment que moom la ñu tabb comme euh, kii mu mu def continuité nekk euh, candidat Benno Bokk Yaakaar donc loolu yaakaar bu bu tasee rek euh, bo c'est tout à normal nit la day am déclaration yu muy def mais bon bëgguma commenter mm-hmm. yooyu déclaration toujours dama noon ñun yëpp leader yi comme nu ma ko waxoon njëlbeen ñun yëpp leader yi nekkoon ci ci coalition bi képp ku nekk leader foofu mënoon nga nekk euh, candidat hmm. léegi bu ñu ko tànnulee nag bon moom allié la euh, je pense que c'est tout à fait normal ak parti am jël position bu mu jël noonu donc loolu bëgguma ci sori bëgguma ko commenter avion la donc euh, voilà ñu man lu ma lu ma intéressé léegi parce que waxoon naa leen ko ñoom yëpp ne man képp koo xam ne moom la présentant moom lay àndal. tey ndax demam gi du am lu mu leen gën a yàqal foofu ci parti bi. non je ne je ne crois pas. Ah, je pense que Abdoulaye Baldé gunge na leen de eh, waaye te bul fàtte ne yor na ginnaaw am na ginnaaw. waaw c'est vrai c'est vrai c'est vrai que euh, euh, discuter wu ma ko parce que je sais que quand même. Baldé euh, yàgg na nekk maire Ziguinchor depuis deux mille neuf ba ba mm. léegi kenn mënul sous-estimer kenn kenn ku ku ku am ku xam politique dëgg xam réalité Ziguinchor. Mm-hmm. kenn mënul sous-estimer euh, euh, lu mu am ci Ziguinchor mais mm-hmm. aussi il faut rappeler aussi dans un passé récent ñun bu mu gënoon am doole gagnoon nañ ko fii moom mu en deux mille quatorze donc loolu mooy politique donc. Euh, politique neewul li nga ne li nga yoroon démb rek mu ngi fii ba suba ba gannaaw suba. Mhm. donc euh, euh, donc ñun man man personnellement du ma ko sous-estimer bu ma sañoon mu def ak ñun. Mhm. parce que politique addition la ak politique de de donc lu mu am bu ñu boole bu ko boole ak ñun pour man. Mm-hmm. mu meree loolu moo tax mu def loolu mais bon. d'accord donc amul amul benn problème. Mm-hmm. yaa ngi koy wax tout à l'heure euh, Ziguinchor ay résultat am dina am solo lool parce que dafa am benn défi euh, biy xaar Benno Bokk Yaakaar foofu ca Ziguinchor tey ndax yéen jàpp ngeen ne dina yomb ci yéen ndax mbapat ngeen am ngeen ay euh, matériel wala bagage mi nga xam ne tey di ngeen mën a convaincre Sénégalais yi génnee li nga xam ne mooy résultat bi gisoon ci élection présidentielle yu mujj. waaw déjà li ngeen war élection locale ak élection présidentielle ça fait deux. Mmh. élection locale nawetaan la. Mm-hmm. nawetaan la affaire de quartier la affaire de nan laa def ci population yi donc euh, il n'est pas dit que lu lu en deux mille moom mooy xew mooy xew en deux donc donc il faut que ñi def attention. Mm-hmm. même analyse yi ñu koy wax actuellement tout analyse analyse yi politique yëpp dañu ne non Euh, terrain Sonko la Sonko moom moom terrain bi jeex na ñun c'est comme dañuy ñëw rek croiser les bras rek bàyyi ko rek mu gagné affaire bi du demee noonu. Hmm. il faut ñu def très attention c'est cela ñun enjeu la pour ñun l'enjeu pour ñun mooy ñu gagné Ziguinchor bu ñu gagné Ziguinchor renverser la tendance bu ñu renverser tendance bi dañuy gën a am respect vis-à-vis de de d'abord de nos camarades. Hmm. de parti mais aussi de nos de au niveau de Benno et de. Euh, euh, la majorité présidentielle. Mmh. Ensuite, je pense que dañuy gën a consolider l'implantation de l'APR au niveau de la région de Ziguinchor loolu am na solo. Mm-hmm. parce que défaite 2019 dafa tax ba euh, ñu bëri ñu defee ne ñun duñu dara population bi bëgguñu on a amuñu représentativité foofu de amul lu ñu déglu or or vraiment ku ñu xam am nañu fi ay victoire yu am solo. Mm-hmm. yoo xam ne euh, euh, victoire retentissante donc loolu moo tax ñun depuis deux mille dix neuf bi léegi euh, peut-être defuñu ko ànduñu woon ñu koy def mais leader bu nekk de son côté muy doon liggéey pour pour pour loolu quoi. d'accord a mm-hmm. Mendy ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay fay Elisabeth di di di vraiment di remercier l'équipe de Rewmi Rewmi FM. Mm-hmm. di leen jaajëfal également di leen merci.